Fofana la ak l'an 2000 l'an 2000 ñu gën ko xam ci Fallou Ndiaye mbokk yi ñu ngi noonu arbitre bi sifflé na l'an 2000 moo leen féete ndijoor Kaana moo leen féete càmmoñ moo ngemboo ngemb lu xonq li ñu ngay lewaatoo bi mooy deuxième combat l'an mil bii mooy deuxième komba Kaana mbokk yi baa ngi dem waaye luur yaa ngay wàññeeku waaye lamb tay bi ute naag lamb dimanche bi weesu arène nationale nga xam ne ndaanaan yëpp lañ fa fekk tay na ñaari ndaanaan ñooy bëre muy Kaana ak l'an 2000 jàppante nañ mbokk yi L'an 2000 daw na rocc loxo bi L'an 2000 ak Kaana làmb ji dina yomb wala du yomb jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen ay wasafoo wasaare làmb jërë ngeen jëf gis nañ yéene gi daw na jël ko Kaana daw na jël ko waaye l'an 2000 da koo tëru ndengeñante nañ ñoom ñaar ndengeñante nañ rocceeku waat nañ ñaari mbëri tàqalikoo nañ ña ngay lewaatoo l'an 2000 la nga koy ci bopp ndànk ndaysaan bëggul lu dul mu réactionné mu daw jël tànk bi pakete ko mbaa sol ko bal ko ba tey ñu ngi ci compétition bi bi mbokk yi le premier janvier 2020 at bu bees terrain gaal gi Diaks production ndaysaan kaanaa ngi noonu mook l'an 2000 ndaysaan l'an 2000 ngàdd na ko daw na jël ko jàppante nañ lu ñu bëgg ña ngay jaayante doole ña ngay jaayante doole ndeysaan daw na jël ko en 2000 daw na jël ko lu mu bëgg na ko mu bañ ndeysaan l'an 2000 ak Kaana l'an yi gis nañ yéen gi ngeen am ci wasaare lamb waaye di leen xamal ni rek seen mbégte mooy suñu bànneex mbokk yi lépp lu ngeen bëgg ci wasaare làmb ngir luy jëmale làmb kanam wasaare làmb dina leen ko wan ba mu wasaa ci àdduna bi wërngel képp ngeen gis ko ba ni ngeen ko bëggee daw na jël ko tëru na ko en 2000 jàpp na ko jàpp na ko wet en 2000 jàpp na kaana en 2000 jàpp na kaana ndeysaan ñu ngi noonu ci compétition bi ba tey ndeysaan en 2000 ak Kaana ndeysaan en 2000 ak Kaana l'an 2000 ak Kaana ndeysaan wàllu bee ñoom ñaar ku ci nekk sa deuxième combat Ahmed Bousso jàppante na fële l'an 2000 ak Kaana waaw mbokk yi ñu ngi ci compétition ba tey Ibou Senghor numéro 2 moo la woon ginnaaw noonu ndeysaan ma nga jàkkaarloog benn xaleb séeréer boo xamante ne ndeysaan Ibou Senghor daw na tëru ko ña ngay bëre ndeysaan mbokk yi Ibou Senghor ku ne xam na ko ci làmb simple def na ci ay jalooreem arène nationale bi passé daa ñëw ñàkk tey ñëwaat na fii luur yi nga xamante ne arène nationale dañoo ñàkkoon ñoom ñëpp ñu ngi fii boo xoolee Ibou Senghor numéro 2 mi ngeen jàkkaar lool ca la bokkoon Boy Faye ca la bokkoon en 2000 fa la bokkoon ñoom ñëpp dañoo perte compétition bi daw ñëw fii làmb noonu la. mbokk yi Ibou Senghor numéro 2 moo leen won ginnaaw ndaysaan lamb jaa nga noonu ndaysaan Ibou Senghor numéro 2 moo leen won ginnaaw noonu ma ngay ma ngay lewaatoo Ibou Senghor numéro 2 Ndeysaan Ndeysaan Ibou Senghor numéro 2 ngeen di jàkkaar lool booy ba daw na tëdd ko mu bañ Ndeysaan du ko bëgg a jàpp waaye xale bu muy daa mën a bëre daa bañ làmb foofu góor la day bañ ndeysaan Ibou Senghor numéro 2 ba ma nga ca compétition ba cey lam ndeysaan nday faatu jali ngeen am foofu ci animation bi mbokk yi lamb lépp culture Ibou Senghor numéro 2 moo leen woon ginnaaw noonu ma nga ci compétition bi ba tey ndeysaan le premier janvier 2020 jot mise bi doon un million waaye teewul xale yi ba tey ñu ngi ci compétition bi ngeen am foofu làmb Ibou Senghor numéro 2 ba ndeysaan ndeysaan Ibou Senghor bëgg na koo jàpp mu bañ ay Franc def ca arène nationale barki démb ma nga fa waaye kenn du Cheikh Tidiane Niang la ma ci xale boobu Ibou Senghor jël na booy jël na ko daan na Ibou Senghor génn na daan na mbokk ñu ngi toll ci quart de finale yi kii nag Modou Faye la muy dajeeg Ahmed Bousso kon ñu gën ko xam ci Boy Faye ndeysaan du Faye ak Ahmed Bousso ndeysaan Ahmed Bousso ñu gën ko xam ci Boy Faye wàllu wee am ci Fallou Ndiaye di l'an 2000 ak Mor Mor Faye ndaysaan ñi sant Faye saf nañ sàpp ci làmb ji Ahmed Bousso jël na ko mbot na ko daan na ko mu nekk ci diggante l'an 2000 ak Mor Faye ndaysaan l'an 2000 ñu gën koo xam ci Fallou Ndiaye cay lamb ñu ngi ci quart de finale ba tey mbokk yi ñu ngi ci quart de finale ba noppi le premier janvier 2020 Diaks Production na nga noonu ndeysaan ñu ngay lewaatoo ci diggante Mor Faye ak Fallou Ndiaye ña nga ca ña bi ba tey mbokk yi am fépp fu làmb ne wasaare làmb dina leen ko jëlil indil leen ko mbokk yi ba ngeen kontaan ci wasaare lamb seen mbégte rek ni ma koy waxee saa su mooy suñu bànneex bu du woon ak yéen ah xamuñu fu ñu jëm waaye doolay jën ndox la waaye doolay wasaare làmb yéen la suñu mbokk internet yi ndeysaan ñu ngi ci combat l'an 2000 bi ba tey ndeysaan ñu ngi ci compétition bi ndeysaan l'an 2000 daw nañ jël ko takk na bañ na caxabal nañ ko bañ na ndeysaan Mor Faye bañ na ndeysaan door na tànk ba bañ na ko da ko bëgg a tegal siège mbot na ko na tànk ba ndeysaan l'an 2000 qualifié na demi-finale ndeysaan champion la ci làmb daa mën bëre finale bii mooy première demi-finale Fallou Ndiaye ak Mouhamed Bousso Fallou Ndiaye ñu gën ko xam ci l'an 2000 Mouhamed ñu gën ko xam ci Boy fay mbokk yi ñu ngi noonu Mouhamed Bousso moo leen won ginnaaw Boy Faye Fallou Ndiaye ngeen jàkkaar lool noonu muy l'an 2000 Mouhamed daw na jël ko tëru na ko Fallou bañ na ña ngay jàppante l'an 2000 ak Boy Faye l'an 2000 Boy Faye ñu ngi ci compétition bi ba tey mbokk yi demi-finale le premier janvier 2020 Jax Production Ahmed Bousso daw na takk ko dina ko dam daw na jël ko Fallou Ndiaye bañ dëpp na ko naax rocceeku nañ tàqalikoo ñoom ñaar Ahmed Bousso daw na jëlaat tànk ba lu nar rëcc na Ahmed Bousso Fallou Ndiaye ndeysaan Fallou Ndiaye Ahmed Bousso Fallou bu Ahmed Bousso eh Khalifa Fallou Ndiaye Ahmed Bousso le grand champion Garga Mbossé dugg si na ndeysaan Fallou Ndiaye Ahmed Bousso ñoo nga noonu Fallou Ndiaye Ahmed Bousso Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye Ahmed Bousso oh! Ahmed Bousso daan na Fallou Ndiaye Ahmed Bousso qualifié na en finale Ahmed Bousso Fallou Ndiaye Ahmed Bousso ndeysaan ña nga ci poids lourd yi demi-finale ndeysaan ñaari mbër yaa ngay leewaatoo jàppante nañ ndeysaan jël nañ tànk ba lamb ja dana jeexam déet rëccaat na ndeysaan ñaari xale lañ ndeysaan cey lamb bees beneen révélation bu bees jël. waaw noo tudd. man tas. tas na tas yaakaar. mais yow tas yaakaar yi gaa yëpp. tas teg keroog juróom jël Pikine tournoi yi ñu man maa jël. ban sëñ Fall. mais yàlla baax na nag xale laa. man bi nga daanee Ibou Segon numéro 2 laa pare ci yow. mais keroog ñëw naa 10 millions ye. barki sëñ Bamba. kii bu dëkk nu mu tuddati. Bakala bu Mbour non keneen ki barki raas jël bu ko maa ko daan bu rëy gaskel si 10 yi. billahi mais bi mooy sama deuxième fois. billahi dem nga final loo yëg. waaw mais dara ñun ay xale lañ barki sëñ Fallou Mbacke ay xale lañ. parce que yaakaar ñaata at nga am. man barki sëñ Bamba 2000 laa judd billahi wallahi taalaay barki sëñ Abdoul Karim Mbacke ma yaakaar tay ak ëllëg. billahi. Ahmed Bousso. Boy Faye. dem na final Faye ñoo ngi lay nuyu. ñu ngi lay nuyu. ñu fay. nga dem final loo yëg. waaw. di sant yàlla ñaar yàlla may ma yóbbu ndam rek ci kàddu Seydina Mohamed loolu laay ñaan daal maa ngi soo ko tàmbali dana nekk sa première finale bi may njëkk a jël ci bari Seydina Mohamed incha allahu rabbi. xam nga ki ngay dajeel tas yaakaar. waaw tas yaakaar yàlla baax na yàlla rek moo mën a tas yaakaar doomu aadama. waaye nit du tas yaakaaru doomu aadama bu ko defee rek daa xamul booy jaajëf ta arène Adrien Senghor dimanche Soninna Garida a tegan piqué un million un million dimanche encore arène Adrien Senghor ten anam sa tegan piqué mbayang euh, Maodo Faye fa Faye Mbodj na ndef kan animation fe Maodo fa Faye Mbodj a passer les fa mille cinq cents arène Adrien Senghor boo xoolee le programme maanaam lu seeseen Sarle ak Goundour de Nangoy Tamana xutit na le 7 ba le 8 mars le 7 ba le 8 mars a tegante ke 1 samedi 7 500 mille dimanche soir 1 million de Nangoy Tamana stade Caroline Mbour stade Caroline Faye maanaam Mbour a tegante ke 3 millions parrain fe góor gi si samedi toog samedi le 18 janvier stade millions Fanta production entrée 2000 VIP 3000 production samedi 18. mbokk yi baa ngi noonu dox ci diggante tas yaakaar ak Boy Faye hey tas yaakaar lu waay mu tas ko tas na ko yegg final de. Boy Faye ndeysaan final baa nga noonu final poids lourd le premier janvier 2020 Diaks production fii ci terrain gaal gi mbokk yi mu ngi noonu final baa ngi dox ci diggante tas yaakaar ak Boy Faye ndeysaan ndeysaan la ngay wax di ree am na wax tas yaakaar boo xoolee xam ne xale booy fay boo ko xoolee xam ne xale la ñaari xale ndeysaan booy fay nee na bi mooy sama première finale tas yaakaar nee na jël naa njurum njurub bërki démb dem naa ci dix million yi mu ngi noonu tas yaakaar mooy Mor Absa Deme Mor Absa Deme ndeysaan ak Ahmed Bousso ndeysaan ñu gën final poids lourd baa ngi noonu Diaks production terrain gaal gi le premier janvier 2020 Boy am na lu mu tari sànni ko ci ginnaaw tas yaakaar Boy Faye Boy Faye jàpp na ko tas yaakaar bañ na Boy Faye xale bi ngay bëreel am na doole Boy Faye takk na ko dana gaaw daan na ko Boy Faye na final bi Boy Faye daan na tas yaakaar doole doole Boy Faye daan na Boy Faye jël na Boy Faye daan na final ba Ahmed Bousso alias Boy Faye ba wax la ko dana am wala njort nañ ko tas yaakaar mi xale la boo xamante ni ku ko jàppale ci làmb mu dem ku juddu 2000 ba 2020 ngay doog a dugg ci sa 20 ans macha allah ku ko jàppale ci làmb mu dem nañ dem ci Michaelis 2020. Boy Faye maa ngi lay siyaar. waaw mi ngi lay siyaar bu baax a baax. di la bëggewaat bu baax a waaw ñu lay delloo di bu baax yow tamit. ñu dugg ci at bu bees sa première finale nga jël ko loo yëg. waaw sant yàlla rek ci at mu bees mii ni ñu duggee ci ndam di wax ne yàlla moom moom jaam ñi moo leen moom moom laa doon ñaan may na ma mënuma fi kenn yàlla dogal ma jël ko ci seen loxo rek di ñaan li des ci suma saison yëpp nekk saison bu neex te gaa yi jël suma combat bàyyi di ay xale lañu tolli si bëre na ñëw ñu bëre lamb day wees de na ñëw ñu bëre rek mooy loolu noonu. bëre dóor bi ngay waxee. waaw bëre bi laay wax mënuma def 11 ñu may daw rek nañ ma jël ñu bëre. ku ma bëgg foo jëm gënoon ma palmarès foo jëm fu ma jëm na ci sama ruq di entraîné ak sama staff ñoom dóor ñoom Sall ngaari Ibrahima Niang sama mag ñoom nekk seen ginnaaw rek ku ñu na nag ñu bëre actuellement booy fay pare na pour ñëpp ku am licence damay bëre ak yow damay bëre nga teg sa bër kan nga jàpp ne moo booy fay combat bu neex ki fi ñëpp mooy kan ku fi ñëpp ku fi ñëpp rek. amul kuñ fi bàyyi. non non ku fi ñëpp am na ñoo xam ne am na dañoo bàyyi. nañ ma leen jox wax ko booy fay. ñoom ñoo la a xam li xew. waxee ma xam ñoo la gën a xam li xew du ma wax. ñu fi ñëpp. sëñ Bass na ki ñëpp bàyyi moom la soxla moom booy fay mbokki yi noonu lañ leen tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqali ko ba ëllëg incha allah ci wasaare lamb ak beneen champion ak beneen lamb jaa jëf.